ñu jugee ci sëñ siidi jaadu na ñu ñëw ci euh, suñu xarit suñu sëriñ euh, suñu conseiller di euh, sëñ Amsatu ku ne xam na ne sëñ Amsatu dara ñoru ko lu may digle ak njàngalem Cheikhul Xadim dara ñoru ko lu may alxuraanul karim ak yoon bi nga xam ne moom la ko bàyyam bu tedd boobu di sëriñ Abdul Ahad Mbakke ak sëriñ Saaliwu Mbakke ku ne xam na li mu def ci moom euh, kon tànk yi nga xam ne moom lañu ñëwee fii tànku euh, taalibe la tànku xarit la tànku nit la koo xam ne saa suñu jàkkaarlook moom euh, dañuy gën a jox pas-pas ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci réew mi di ko def di ko jaayante jublu ci Euh, jëfe kàddu sëñ boobu nga xam ne euh, wax na ñëpp ne faw ñu taxaw ci euh, dagg jéng yi ku ne xam na it ne sëñ Amsa yoon bi muy teg mooy yoonu siraatul mustaqim nde li muy def ci gone yi ci wàllum njàngum alxuraan ku ne gis na ko di dellu di feddali suñu kóllëre ak moom di ko dénk suñu bopp di sàkku mu ñaanal réew mi nde xam nañu ne nit ku dëggu la nit ku jege suñu borom la te xam nañu ne bu ñaanalee réew mi ci barke baayam bu tedd boobu suñu borom dina def dal dina def tawféex dina def euh, xéewal ci réew mi kon yàlla nañu ko suñu borom euh, joxal kàttan mu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, sëriñ Sidi yàgg fi lool it te ànd ak wér di ñaan suñu borom Euh, kii di mun taxa nga xam ne moom lañuy ñuy xoolee xaadimu rasul mu bàyyi ko fi jox ko kàttan moom it mu yàgg fi lool te ànd ci barke bis bu tedd bii daal ñu ngi ñaan euh, suñu boroom faj aajo yëpp euh, te yokk dal ci réew mi. gis nañ ne suñu réew mi war liggéeyu mag ñi nga xam nga xam euh, xëy na dinañ ci gën a xuus da nga wax ci col euh, mais loolu dafa dafa dafa dafa romb sëñ Abdoul Ahad dafa dem ba ci njàngalem sëñ bi euh, parce que bu dee wàllug defar wàllug économie. Euh, wàllu infrastructure wàllu développement euh, loolu sëñ bu mag bi ci boppam moo njëkk a tracé yoon wi kon sëñ laa Lahad defut lu dul jaar ci yoon woowu nga xam ne euh, bàyyam ju tedd ja daf ko tënk te it muy modèle de développement moo tax may wax ne faw ñi ñi xam ne li ñuy dem di ko wuti mu ngi ci réew mi mag ñu baax ñi bind nañu ko mag ñu baax ñi jàngale nañu ko amul benn modèle de développement bu mën a romb euh, la sëñ bi bind ci Matlabul Fawzayni kon jaadu na ñu xam ne la ñuy wuti mu ngi ci suñu biir daf noo noo jege lool euh, waaye ñoom mag ñooñu ci mel ni sëñ Abdoul Ahad jëfewul kàddu yooyu ñuy wax ne bu euh, sëgg yombee far jafe moom xamoon na ne lii war a mun a def développement Touba xoolal mbedd yi kañ lañ ko tracé kañ xoolal tey université bii ñuy wax kañ la ko xadd moom kañ la ko dagg ak kañ lañu commencé université bi mu nekk ci xolu Touba xam nga kooku c'est un visionnaire alors moo tax may dellu ci di wax ne jaadu na ñu xam ne njàngale mag ñi mu ngi ci réew mi kon liy defar réew mi soriwuñu wax nga léegi ci wàllu colk xam nga euh, tey euh, ci wàllu colin murit bi dafa dem ba dindi li ñuy wax décomplexé cest à tey aéroport Los Angeles boo gisee ab murit mu solu nga xam ne kii ab murit la du solu beneen solu boo xam ne dañuy jàpp ne kii solu keneen la mais da ngay gis ne kii solub murit la alors loolu yëpp dafa bokk ci njàngalem ne nit da ngay xam sa bopp ngir gëm sa bopp kon euh, bu ñuy woote gëm sa bopp faaw nit ñi xam ne euh, waru doon lu ñuy wax rek cest à comportement la jëfin la war a doon te bir nañu ne ñun bu nit ñi doxalee noonu bu nit ñi xamee seen bopp d'abord ba noppi gën seen bopp li dal suñu réew yi duñu dal parce que damay wax saa su ne ne mag ñu baax ñi bu ñu dellu siwaatoon tey ñun bari na ci ñun ñuy defaraat seen toogaay parce que bu ñu nee Sénégal ñu ne bokk na ci ñaar réew ak juróom yi gën a ndóol ci àdduna bokk na ci réew yi gën a dellu ginnaaw ci àdduna bokk nañu réew yi gën di tàllal loxo ci àdduna bokk nañ ci réew yi gën di dimbali ci àdduna bokk nañ ci réew yi ëpp njublang ci àdduna parce que mooy njuuj njaaj mooy corruption mag ñi jàngaluñ la loolu wuñ fi loolu muy ñoom ña mag magi magi diine yi ci réew mi yëpp ku ci nekk wanoon nañ ñu yoon wa ñu mën a def ku fàttale fàttaliku Cheikhul Khadim ci li ñu ñuy nettali ca njaareem fexe woon na ba am li ñuy wax autonomie lépp lu mu soxla boppam ñagoon na ko ba ci biir kër ga lépp ba ci wuude bay defar dàllam fexewoon na ba ñàkk boppam ba lépp la mu soxla mu koy defal boppam suñu delluwaatoon ci njàngale moomu lépp lu ñu soxla ci réew mi doomi réew mi di ko defal seen bopp du ñu dem di wuti du ñu dem di importer ji du ñu dem di jëggaani dañuy yem ñun ci li ñu moom dëgg la wala du dëgg kon mooy li ma wax sànq rek nañu dellu ci njàngale mag ñi parce que li mun a soppi Sénégal li mun a transformer Sénégal mu ngi ci suñu loxo waaye dafa mel ni dañu koy sàggane wala dafa mel ni dañu ko bàyyiwut xel waaye kilifa yu mel ni sëñ am sa soo toogee ak ñoom saa su ne ca yoon woowu lañu lay delloo ci njàngale yooyu lañu lay fàttali kon euh, nañu ñaan suñu borom ci màggaayu bis bi ci tolluwaayu bis bi ñu ciy fàttaliku euh, sëñ Abdul Ahad Mbacké yàlla na suñu borom def jàmm def dal def tawféex def taysiir si réew mi jërëjëf jërëjëf.